أحس بالله من أستاذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم بسم الله سبحانك لا حلم لنا إلا ما حلمتنا بوكو سنغال تي في سن بوكو الحاج مودو سيسي مارا سيسي موي نيو يني لا حي بيرن تاكين كوم نام كوي ادو رك سي وات بوها تبارك الله تاي نو فاسيني لا حي بيرن تسي اند bu ne ànd nag la sëy gën a fës wala lan sëy gën a xam dana si bokk sëy àndu sëy te mooy loo xam ne santaane borom bi la mu bëri lool jamono sëy yoo xam ne danay bëri lëj-lëj dana bëri jafe-jafe te baasu sëy waroon a doon mawadda ak rahma waaye léegi ma xaw a nuru ne xadaawa ak baxdaa moo xaw di bëri si ànd yi la koy wari nag fa la koy war nag fa tabarakallah bëri na am bëri na si lool lool loo xam ne pexey seyaatin lay doon te mooy jéem di tàggale ñaar ñuy ànd moo xam àndu sëy la comme jëkkër jabar ndax dinaa di wax ne xol lu sa njëkk rek mooy dëgg nekkandoog nit ay at fa tabarakallah lu ëpp fanweeri at wala lu fukki at wala ñaari at wala moo xam ay weer ak lu mu si mën a doon rekk ki nga xam ne dafa bàyyi ñëpp tànn la yow ko jigéen ki ne yow laa yéene nga nekk samay yaayu doom ku góor ki tànn ko jigéen ku góor ki tànn ko jigéen ki yow laa fas yéene nga nekk samay waajuru doom ku jigéen ki tànn ku góor ne yow laa yéene nga nekk samay papaay doom ñooñu fa tabaarakallaa euh, loola mooy dëgg te loolaa nekk seen xol leneen lu sa feeñ rek day xaw a nuru ne li ni wax euh, soow lu sa ñuul rek bokk sa te muy lu bëri léegi si xeetu daddaat la yoo xam ne dinay am si sëy fa tabarakalaa euh, bëggante soppante euh, macha allah ku si nekk di yàkkamtey gis sa morom te ñaari saa du ngeen mën a toog waxuma la semaine waxuma la suur waaye ay minute rek du ngeen ko mën a waxtaan te euh, kenn xolam deretam du yëngu loolu yaa quelque chose fa tabarakalaa nu am lu nu siy may nag allahu jaamihul wadud yàgg naa koy wax képp koo xam ne bi bëgg nga koy nekkal muy gën di lay bëgg jéema la xam chiffre am nga koy def loolu ñaan yàlla yàlla musal ñëpp si daddaat le te ëpp nay weddi ku dem suratul baqara danga ko fekk alxuraan di koy wax sa lay tàggale ñaar woy booloo rawatina jëkkër ak jabar muy luy jar di muslu kon looloy tax toujours nu yàgg di wax lu si nit yor rek na ko ñàkk su dee soxna la fexeel mu nekk sama moomeel ba nga xam ne fi tabaraka la ndax danoo ne si jamono joo xam ne xëy toog amatul soxna yi ku xëy rek yaa ngi uti loo loo ak loo gën a jàppale si borom kër ak loo jàppale sa njaboot te li ñu wax soxna du raw day soxna du të day raw kon fi tabarakallah borom kër yëpp nañ di gën di moom nañ di gën di taxaw ba moom seen soxna fa tabarakallah te muy lu loo xam ne bii danoon na si jamono joo xam ne mën nga ne farata la ndax saay saay yu bëri nañ te moyen de communication yi fatabarakallah jamono yi deux mille dix-huit bi nu nekk wute na ak jamonoy maam yi mooy tax fatabarakallah ku si am soxna rek fexeel mu nekk sa moomeel ba nga xam ne seytaane du mën a dox seen diggante kasaaka yi soxna si na jéem itteem yépp na jéem a def fatabarakallah lu koy jubaleeg sëriñam waxuma lu koy moom ndax arijalu xaw a mun a xala nisa góor moom toujours moo war di yilif moo war di nekk si kaw ndax jëkkër suy ne si kaw fa tabarakallah soo amee doom kenn du ko tere njoowaan waaye soo bëggee macha allah mu nekk sa surga amaana nga am ku ni yónni mën na lay jafe te loolu lu ëpp di weddi la mooy tax e, soxna yi nan di nangu nu leen di yilif tey nuy sàkku ngërëmu seen way seen borom kër fa tabarakallah te nuy ñaan si yàlla di ñaan yàlla lu leen di gën di jubaleeg seeni borom kër lu leen di gën di dàqal seytaane si seen couple yooyu daal yu nu yu nu doon soññi ñi nga xam ne bi nooy topp Sénégal TV yëpp ñoo xam ne sey dañu koy ñàkk ku sam soxna fexeel ba nga xam ne bii macha allah xelam du daj lenn lenn lenn lu dul jàmm say soxla waaye fa tabarakalaa xelu kenn du nekk si jéem koo yàq jëm koy wëlbati tamit lu bare bëri ñoo xam ne saytaane mën na leen ba nga xam ne fa tabarakalaa Eh, lu duñu xam la leen lew la leen lewul donte benn soxna du lew nit te fekk eh, joxoo ko can waaye comme danoo ne si jamono joo xam ne sayaatin yi danoo bëri te jamono dafa lëndëm gis si ñoo xam ne bii macha allah eh, dana leen di jaral lu nekk ba mën nañ di wëlbati xel xelu soxna ba nga xam ne bii na ko borom këram doon la borom këram doon yëg sa moom loolu dootul am leneen lay gis. yooyu mooy tax ku si am soxna rek fa tabarakalaa jéem a la fexe mu doon sa moomeel nga jéem ko yilifa faaw it fa tabarakalaa soxna yi di jéem di ñaan di topp si gannaaw borom këram loolu mooy tax lu mu am rek mu barkeel fa tabarakalaa te dinañ di wax ne nan di sàkk wàlle barke kontu barke lu am am solo la mooy tax dañuy wax ku la gën way jur rek walla ku la gën yaay rek rawee na lu bare bare bëri te fa tabarakalaa dañoo yéene ñëpp am jàmm waaye rawatina soxna yi kon loolu laaxe biir la boo xam ne bii ñu ngi leen ko doon baaxee ñoon Wadduha si mbaaxu yàlla ak ndimbalam dinaa koy wax lu bëree bëri na sëy danoo yéene sëy yëpp jub sëy yëpp neex mahaba ak mawadda doon luy sax loolay tax yee mënu see def lenn ba nga xam ne bii sayaatin du mën a yàq benn couple si kàttanu yàlla ba nga xam ne bii lu fa nekk si gàllankoor yi xeete ni daddaat le fa la si kàttanu yàlla yàlla baaxee nañu mën nañ saa def ay ñaan ba loolu lépp faxasoo fa tabaarakala